هذا رسول الله يوم نزوله متقلدا بالحق والبرهان أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان إبليس الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ولانا محمد وعلى اله وصحبه وخير خديمه مت وسلم بوك جولي دي غنا بون سانتاتي سونو بوروم سبحانه وتعالى نيوغي جولي سي جام دي سانغ سي نيب دونت يالله محمد صلى الله عليه وسلم دي نان سونو بوروم مومي دارا تاول يالله سونو بوروم دولي ديف سي ريمي جام يالله نتي جيتال سونو كليفه ديني غا خامني ما شاء الله سين بوبو ديب غير جمال دين الاسلام كانم سين بوبو ديب غير جمالي ريوم سنغال كانم دي نان سام بوروم مي دارا تاول يالله سونو بوروم دولي لين دغرل دولي لين كاتانال دولي لين سامو باركيو نتي صلى sallallahu alayhi wa sallam leen fàttali ba léegi yéen ak ànd ak macha allah seen télé bi ngeen tàggu muy Talibé TV ci spécial édition bi nga xam ni ndax jamono ji ko xam ku ne nag xam ni réew mi doxee xam ni benn actualité moom muy ziara général incha allahu taala nga xam ni dimanche 13 mars la xam naa duñ ci sori nag tey nag ñu ciy ànd ak macha allah professeur Mame Ousmane Ndiaye sang bi ñu ngi lay ziar. waaw salaamaaleykum wa rahmatullah xaaji Cuun maa ngi lay ziar bu baax a baax di ziar seen télévision bi Talibé TV. di rafetlu bu baax seen liggéey di ziar seen téléspectateurs yëpp na tabaarakallah macha allah yaakaar naa nag kenn dootu ko présenté moom macha allah muy boroomi xam-xam macha allah ci diine macha allah waaye di boroomi xam-xam ci tariqa bi di tariqa Cheikh Seydi Ahmed Tidiane Chérif El Fatimi yaakaar naa nag ziar général ñu ko waxee xel yëpp dana dem ci Serigne Babacar Sy avant ñuy waxtaanee ziar bi yaakaar naa dañuy def benn petit briefing rek jur ki waral ziar bi muy Serigne Babacar Sy tey bu fekkee duñ ko bëgg a xam kan kan mooy Serigne Babacar Sy waa tabaarakallaa laaj bu am solo la eh, bu xóot lool muy sëñ Babacar si radiallahu taala anhu nga xamante ni moom moo xalaat initié ziar général bi ginnaaw làqu way juróom bu góor Seydi Hadj Malick eh, sëñ Babacar si radiallahu taala anhu moom mooy doomu Seydi Hadj Malick mooy ñaareelu doomam bu góor waaye yàlla def mu nekk premier xalifaam di première xalifaam ci njaboot gi ci diine ji ci tarixa bi sëñ Babacar Sy radiyallahu taala anhu nekkoon nag nit koo xamante ni référence la ci diine référence la ci réew waaye référence la tamit ci ndaw kan mooy sëñ Babacar Sy radiyallahu taala anhu yaatu na waaye angle boo si jël rek mën see jëriñu buñ ko jëlee ci angle comme ñun ndaw ñi mën na nekk suñu leadership nekk suñu royuwaay lu tax ndax koo xamante ni da am wayjur wu toll ni Seydi Hadj Malick mu yor mission bu rëy di mission diine di mission tariqa ba noppi ànd ak ay taalibe ay ngànkam yoo xamante ni ay boromi xam-xam lañ génn àdduna nga war a donn ndono loolu ci âge boo xam 37 ans la loolu référence la ci bépp ndaw boo xam ni bis bi nga majoré war ngaa jàpp ne sa wéyjur wu góor lépp lu mu yoroon war nga ko mën a yor nu ëpp na mu ko yore woon sëñ Babacar Si radiyallahu taala anhu nekkoon nag koo xamante ni ginnaaw bi mu jàngee am xam-xam ndax moom wax na ni li ëpp ci li ko jàngal ci li mu xam ci Seydi Hadji la ko jànge ginnaaw bi nga xamante ni Mamour si way juróom moo ko jàngal alquranul karim di freeru way juróom Seydi Hadji Malick radiyallahu taala anhu sëñ Babacar Si ginnaaw bi mu jàngee ba am xam-xam mu yittewoo li góor yàlla yi di yittewoo mooy fas yéene jege suñu borom ba am cëru yàlla ndax am googu mu am cëru yàlla moo ko tax a donn Seydi Hajj Malick donn tarixa bi ndax tarixa bi ndono lay doon loo xam ne du njuréel rek mooy tax nga mën koo donn njureel dëgg la lu si ndaw la cax waaye xam-xam ak cër mooy tax nga donn ko te Seydi Hajj Malick radiyallahu taala bi muy eh, waaj a làqu dafa wax ni cër bi ma yàlla jox ñi ko tegoon sama loxo réunion nañ ba d'accord ni sama ginnaaw céru sëñ Babacar si radiyallahu taala anhu moom la kon mag ñëpp xamoon nañ ni kii kuy dooni dara lay doon ëllëg Seydi Hadji Malick radiyallahu taala bi mu génnee àdduna mu taxaw nag taxawaayu fulla ak fayda ci liggéeyu baayam ma nettali la si benn rek bi Seydi Hadji Malick génnee àdduna nga xamante ni daanaka robaguñ ko sax wala ñu ngi koy soog a rob mu xaddam yi dajaloo nan la ñuy def ba dëjal ko mu xaddam bu nekk ñu cotiser pour ñu war koo dëjal ndax xam nga dëju kilifa day laaj ay gan ak nangam bi ñu woyee suñ babacar si radiallahu taala anhu wax ko ko suñ babacar ne leen bala ngeen def dara ci kër bàyyi jàmbur da ngeen di laaj doom ji ba mu tëlee ba pare ñaata ngeen yaakaar ni mooy mën a sama bàyyi misaal rek si jamono ñu ne ko bu dajale woon ba am 2 millions mu ni toog leen ma ñëw génn 3 millions teg ci table ji ñu dëjal leen ko te booba waxagun sa waxu kan mooy doon seydi haji malik ak kan moo war a tooge waaye ñi war a doon Sidi Ahmed ñoom ñi ngi réunion ci lu ñu war a pour dëje ko moom mu leen di wan ni euh, maa dëj sama baay kon lépp loo xam ne yoroon na ko rek mi sama loxo ndax moom mat na li mu doon. ndax bu bu gàmmoon Tiwaawan am na ñoo xam ne xëy na mënuñu woon ñëw dëj ba ñu ne xaaral ñu occasion wala ñëwaale dëj ba am ñoo xam gëjoon nañ Tiwaawan ñu ne xaaral ñu occasion ñëwaat am ñoo xalifa bu bees bi bu ne carré ba sàkkaay bu rafet photo amul woon ñi ne xaaral ñëw xoolaale ko mu woote ndar keroog Tiwaawan dafa wéet kenn gàmmu fa ñëpp fekk ko ndar Euh, way juróom bu tedd ba dégg naa bi mu xoolee génn mag ñi magi yi dajaloo naan cey man xale bi moo ñu jaaxal Babacar Sy de na fi loo xamante ni koo gis mi gàddu ak ginaaram kii bokk ak cëram ñi ngun di yéeg ci pont bi di dox waaw bi ñu paree la ko indiwaat Tiwaawan ginnaaw bi Seydi Hadj Malick génne àdduna itamit euh, dafa dafa écarte woon tuuti demoon ndar benn jamono ñëwaat bi mu ñëwee fekk daal li fi Seydi Hadj jotoon bàyyi ay mag dajaloo nañ ba xaw koo lijjanti jiital kii bàyyi kii bi mu ñëwee mu dajal leen ñoom ñëpp ñu toog mun leen lii ngeen fi def lu du lu fi Seydi Hadj Malick bàyyi woon delloowaat leen mbir yi daan ko diw mu ne ah mu ne ko delloowaat ci ginnaaw diw demal nga di ci lii moo wax nag képp ku ci àndul ak man dinaa rëq sa ndigg ci jamono boo xam te yaa ngi am 37 ans te ñi daroon Seydi Hadj daanaka ñi si gën a néewu at ñoo Seydi Hadj Malick ñoo maase xanaa kon loolu taxawaay la ak la ak mat ak jom. ba noppit mu góoru ci wàllu àlliwoom fexe ba jàng ba doomu soxna yi mu jamonoonteel yépp téere bu ñu taalif moom mu taalif téere bam ba am na benn muqaddam bu mu doon abbu téere bu Seydi Hadj Mal def ci xurufu salaatal fatih sëñ Babacar di ko abbu pour mu abal ko téere bi ba mu demee wax ko ko muqaddam da ko bind leetar ne ko doomu soxna du abbu téere tey defar téere ba mu ñëwee ci saase la defar xurufu salaatal fatih comme bu Seydi Hadji Malick daal koy yónnee na ko damaa bëgg bu Seydi Hadji Malick di ko barkeeloo waaye lottuma pour defar téere bu mel noonu ci la defar xurufu salaat al mu nekkoon nag koo xamante ni ku amoon fulla ak fayda la ci wàllu diineem amul woon complexe moom suñu baaba ko salaat al amul woon complexe euh, premier xalifaam bi ko bi ko gouverneur wooyee ñuy waxtaan booba tubaab la gouverneur bi ne ko waxal loo bëgg ñu defal la ko mu ne ko pare nga mu ne ko mu ne ko lenn rek laa bëgg nga may ma ko mu ne ko lan mu ne ko tusbaar lee mu jot pour audience bi nag gàtt ndax mu dem julli ji tusbaar à part loolu bëgguma leneen ba noppi musul am complexe ci tubaab euh, ginnaaw bi mu nekkee xalif général gouverneur soxla ko dana ko ah, tey nag du Babacar mi daan wuy si mooy Babacar moomu ndax dafa am lu ma géré tey boo ma soxlaa nag kilifa laa yaa may fekk si waaw ndax kon tant kon tant que xalifa la intérim boobu lay demee personnalité boobu amul woon benn complexe ci ci ci nit ku weex waaw loolu na xëy na mi ngi ko doon ne ca ci ay maama waaye doon na ko ci baayam Serigne Touba radiyallahu taala anhu ndax Cheikhul Khadim noonu la meloon ci tubaab ba waayam boobu sax daan na ko wax daan na wax ni ba der bu ñuul bu mu tax nga nga ñàkk fayda ci borom der bu weex Sëñ Babacar Si radiyallahu taala anhu noonu la sàmm woon tamit ci wàllu charia daawul xool jigéen daawul gis jigéen daawul saafante ak jigéen jigéen ñi mas nañoo dajaloo yónni kenn ci moom ne ko ñun de suñu baaba ko dañoo bëggoon ñu gis ko ndax ñun bu ñëwee du ñu recevoir day jël rideau doxale ko suñu diggante te ñun bëggoon nañoo xam nu mel ca rafetaay ba bi ñu ko waxee suñu baaba ko mun leen ñi gis ma fii ëllëg du ñu gisante yombal xiyaam ak ñi bàyyi fa gisante neexe ñi gisante déedéet mosuñu ko teg bët daan dafa la rideau fa la yemoon am na fii si Tëngéej xam naa kër gi benn kër taalibeem boo xam ni dafa jël photoom photo sëñ Babacar taf ko ci saalam mais photo soxnaam photo soxnaam dafa jël photo sëñ Babacar teg ko ci kaw foto soxnaam taf ko fi euh, am benn nit yàlla bu tëdd ba guddi sëñ Babacar demal kër sama sopp na ma lool waaye am na lu muy def lu may déranger ndax sama photo la jël ci kaw photo soxnaam si radiyallahu anhu ku fonkoon tamit Euh, mbokk gi la daan na wax ni euh, ak mbokk bu leen yàlla boolee bu ñu àndee mu rafet mais bu ñu tàqalikoo rek mu ñaaw ku amoon nit kóllëre la ba way woo nga dégg ñu koy wayal soo ma masaana ànd ak sa xarit ñëw présenté ko ko soo fa ñëwaatee àndoo moom dina la laaj anamu ak lu tax àndu leen bis boo ko waxee loo xamante ni xëy na ñagas ñagas seetaane la lu mu ci man ba ngeen mën a àndaat dina ko def kon kooku mooy sëñ Babacar si radiyallahu taala anhu yaakaar naa ne nag nim euh, na ko résumé nga xam ni yaakaar naa lii mooy njëriñ nag it yàgg ni dégg histoire waaw yàgg na nañuy dégg xëy na waaye en résumé léegi nag digganteem ak ñi nga xam ne nag ñoom la bokk ak Cheikh Seydi Hadji Malick nga xam ni am na way wu rëy yoo xam ni moom la ko ma Abdou way ba tax na way woo sax moo gën a tasaaru ñu gis nit xëy na euh, moom euh, taawam mi ngi ko tuddee Serigne Mansour Sy waaw moom sëñ Babacar Sy yàlla defoon na ba ñi mu bokkal Seydi Hadj Malick moom jàppale jàppewu leen ay frère wala ay sœur mais daf leen jàppe ay sëriñ dinaa des jox ay misaal benn bi sëñ Babacar mas na toog di waxtaan benn doomu Seydi Hadj Malick muy soxna Roqee si nekk si jotaay bi boot doomam doom ji di jooy. sëñ baab ko ne kuy jooy ñu ne ko doomu soxna roqee si mu ne ah nañ ko ndax mu toog ndax mënumaa maa toog di di dégg deretu Seydi Hadji Malick buy jooy waaw ah buñ ko noppiwul ñu njàq audience bi waaw te xew-xew bu am solo la woon mu ni munta xool deretu Seydi Hadji Malick di jooy euh, sëñ baab ko si radiyallaahu anhu daan na wax ne tamit kër gi bu nekkoon gàtt Cheikh Al Hadj Abdou Zabax mii rakkam mooy res wa te res laajul paaka laajul jaasi sëñ Babacar Si radiyallaahu taala anhu lépp loo xam da ko daan def da daan woo rakkam muy Cheikh Mouhamadul Mansour teg ko ci wetam audience bu mas a am lu muy def di diisoo ñoom da ciy diisoo ak ak i rakkam moo tax sëñ Baaba euh, Cheikh Alhaaji Abdou Dabax way ko way wu am solo wow te it du Alhaaji rek ko way de mais mboolem ñi bokkal Seydi Hadj Mal ñoom ñëpp nangul nañ ko way ko wayu Cheikh Alhaaji Abdou Dabax bi moo si gën a siiw ñu di ko way mais Maam Mansour way na ko sëñ Habib way na ko Euh, maam bi Seydi Hadji Malick génne àdduna euh, defe naa première juma wala deuxième juma bi ñu njëkk a julli dañu amoon ganu shérif xam nga sénégalais nit ku ñuul dafa daan xaw a am complexe ci nit ku weex comme gan gi shérif la rek di di nit ku weex ñi daal di am complexe ci jiital ko mu julli juma mais sëñ Babacar Sy radiyallahu anhu toog néegam ba yàgg dégg kii tari mu xam ni kii du kàddu maam Mansour du kàddu rakkam El Hadji du kàddu imaam bi ci la sol yéram dugg ci biir jàkka ji fekk nit ñi sujjóot mu ne asalaamualeykum ñëpp si gën a asalaamualeykum mu dem taxaw sa minbar ba daal wax noddukat bi noddal mu nodd mu xutbawaat jiite bi mu sëlmalee mu leen yéen kañ la fi Seydi Hadj Malick génn matagul sax weer ngeen nar a sàggane diine kii dëgg la naam bu doon ko yàlla yónni sax musaafir la tukki la tukkikat tukki nag koo tukkee si dëkk ku jumaa waru la jumaa waru nooy jiite ñu jumaa war <laughs> فوفا لا ركم حاج محمد الماسود دف خسيدا فيا فوا عجبا للشيخ ان قد صلح الصلاه جامعنا با با خسيد با جيخ تي ما مسود بيند واي نكو بودو وون ياو تاي سونو جولي غي من نا ياق واي نك جوبنتي غوكو دفر كو رافيت ركم محمد الحبيب سي ني مو نجهك يكهتي اديه 1 مليون جوخ كو سين باب كرس بو نوبي داولال كو نيك شوفورم نياري ات كيرو بيغا خامتيني سيد حاج محمد رضي الله تعالى عنه maam Safeetu Ñang di soxnaam di wayjuru Cheikh Al Hadj Abdou Dabakh ak maam Habib ak maam Mansour dafa jël seeni loxo jox ko benn mag ne ko demal ci sëñ Babacar Sy radiyallaahu anhu nga ni ko juróolu ma ko ay doomi baay ay jaam laa ko jural waaw ñoom it ay rakkam jàppe woon ni sëñ Babacar mi ay doomu baay mais jaam lañ ko jàppe woon Cheikh El Hadj Abdou baax déglu naa mu nettali gémmiñam sama nopp mu ni ñëw na di ziyaara sëñ Babacar rang nee na di rang ba bay xawa melni kuy xawa a rang bi ki tok ci porte bi di di gérer di gérer sécurité bi nek dafa lay romb rek mu mbecc ko teul nee bu ko mbéjee rek ne way loy def ni duggal ci rang bi gaaw Cheikh Cheikh Abdou nee ma daal di duggal ci rang bi nee biñu dem di rang di rang bay waa yegg am ku ne ko kii rakku seigne babakar la nee gaay ñew mu len dedet Cheikh Abdou nee dedet li ñëpp bëgg laa bëgg te it man Cheikh Abdou Daba xaw ma lan laa def yàlla ba yàlla nattoo ma naa ko muñ rek waaw xoolal loolu ci ci ci ci ci ci ci jamono bii boo ko fi defoon waaw euh, Cheikh El Hadj Abdou baax ñëw na fii Tilleen marché Tilleen gis benn yére bu rafet boo xam te ni marocain yi ñoo ko daan indi genre jàllaa bi yooyu li ñuy tooñe taalibi Cheikh naan dañoo bëgg sanse nee na mu gis ko euh, naar bi di ko jaay ne ko nag yére bi amul Sénégal ñaar la fi woon benn kilifa gu mag moo ko mas a am yow yaay ñaareel bi parce que du yërëb como kilifa gi ko mag mooy xalifa Tiijaan yi à part moom yow rek la nee na Cheikh Alhaji Dabax bi mu déggee loolu la jënd yëre bi ñëw ba ci sëñ Babacar si radiyallaahu taala ne ko am jox naa la ruus naa ñi naan lii benn la fi Alaaji Abdu moo ko ñaareel waaw sëñ Babacar tamit mas na toog dégg benn waay bu yëkkati benn kàddu gu tegginawul jëme ko ci Cheikh Alhaji Abdou Sabah te njabootam la taali taalibeem la daal ñu dem ba jëmmi jamono waa ji ñëw ci sëñ Babacar Sy radiyallahu taala ne ko damaa bëgg nga yeesal ma mu wax ko kàddu gu sévère ne ko yeesalu ma te dog nga ci tarixa bi ndax kàddu yu ñaaw yi nga yëkkati teg ko ci daru Cheikh Al Hadj Abdou Dabakh tax na dogoo naa yow àdduna ak àllaaxira kon moom sëñ Babacar Sy nangul woon dara dara lu laal mbokkam yi rawatina ñi mu bokkal Seydi Hadji Malick muy góor nag muy jigéen waaw léegi léegi léegi léegi macha allah mu am nag diggante boo xam ni xëy na diggante moom diggante mag Cheikhu nag Tidiane mu mel nag moom nag wax fa dëgg yàlla inspecteur du tariqa bi. waaw loolu moom lu am solo la ndax boo xoolee mën nga ni moom dafa tudde woon boppam défenseur wala généralu tariqa Cheikh Ahmed Tidiane Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Chérif moom yamale ko woon ak dara dara façon xeetu na way woo gis. wala nu mu rafete way na ko Cheikh Ahmad Tidiane Chérif daf ko bëggoon defoon ko muy léppam moom sa daan wax ni eh, képp ku duut tarixa bi baaraam Babacar duut la baaraam jamono yi muy dund amul kenn koo xamante ni ñi ma nga offensé lu jëm ci tarixa Cheikh Ahmad Tidiane boo ko defee rek jot nga jikkoom mu daan baax baax li mu daan woyof woyof côté boobu doo si jaar eh, am na benn benn xasidaam boo xam ni defar na ko ci Eh, way na ko Cheikh Ahmad Tidiane Chérif mooy halmin sabilin mu gën a ñi gën koo xam ci eh, xutbul wujudi alladi abda wilayatahu bi mu ko defaree ba pare dafa Cheikh Ahmad daf ko feeñu ne ko xasida bi nga defar ci man day neex na ma lool dama la see bëgg a ndokkeel ndokkeel li mooy soxna asukan am na lu nekk ci biiram te góor lay doon te nag ma ko tudde te nga xam ne lépp loo way ci man doom jooju bu juddoo dina ko way ci yow muy Serigne Cheikh moo tax nga daan dégg nga daan dégg conférence Serigne Cheikh mu naan laaj leen sëñ Babacar ndax fay naa ko wala fayuma fay naa ko ba bis ko maanaam lu mu wañ ci Cheikh Ahmad Tidiane rek Serigne Cheikh way na ko lu mu defendre Cheikh Ahmad Tidiane rek ba xeex ci rek Serigne Cheikh xeexal na ko lu toll noonu défendre na ko lu toll noonu mag ñi tamit nettali nañ ne euh, Seydi Hadj Malick radiyallahu taala Euh, mas na woo sëñ Babacar Sy radiyallahu taala anhu ba mu ñëw mu ni ko dama bëgg nga dugg ci néeg bi dina am koo fa fekk nga nuyu ko ñaan ko sa soxla nga wax ko sa soxla mu dugg gis fa benn góor nuyanteeg moom mu wax ko soxlaa mu wax ko ko bi mu ñëwee sëñ ko si ne ko fekk nga ko fa mu ne ko waa fekk naa fa góor gu rafet ku taaru leer nañ yonent sax ko tegoon mu ni ko loo ko wax mu ni ko li ma ko wax mooy ñaanal ma ma nekk taalibe Cheikh Ahmed Tidiane Chérif na sëñ Babacar Si radiyallahu taala sëñ Seydi Hadj ma ko jox ma loxo mu jox ko la mu ne kookoy Cheikh noppi mu nekkoon na koo xamante ni ku amoon cër la ci tarixa bi ba mbooleem ñi nga xamante ni ay magu tarixa bi lañ di si ay muqaddam di si ay xalifa di si ay shurafa di si ay sérif ñoom ñëpp àndandoolan nangul ko cëram bàyyee ko benn bés ay mag yàlla may cër ci tarixa bi mas nañu dajaloo ñëw ci sëñ Babacar Sy radiyallahu taala ne ko ñun de nangu nañu yaay xalifa cheikh d'accord nañ ko waaye li ñu fi tax a ñëw mooy dañ lay laaj ndax xilaafa gi cër sàngam ak sàngam ndax cheikh jox na la ko wala daf laa joxandoo lépp wala am na lu des nee na sëñ Babacar Sy radiyallahu taala tekk ba yàgg siggi xool leen ne leen bi ma cheikh di jox tarixa bi ak yi mu war a àndal cëru xilaafa gi nee na bu manqué woon virgule ma gedd ko waaye lépp la ma joxandoo ci la don ci la ci la moy joxoñam bo mu nan fi ba fa àddunay tukki lu fi lu fi lu fi way du yor ci tarikh Cheikh tian Tidiane rek cieur bi tek nako sama lox mu ne ko bu si bàyyi woon wir gërëm gedd ko waaw babu ko sir radiyallahu taala anhu loolu la ko yàlla loolu la ko yàlla mayoon waaw mhm. mu jamonoon teg ay euh, yeneen kilifa yoo xam ne xëy ci tarixa bi alaaka bi lan la waaw moom nag sëñ Babacar radiyallahu taala anhu ku amoon jàmmoo ak mbooleem ñi nga xamante ni ñoom la bokkaloon euh, diine ji nga commencé ko ci kër woy juram baayam cheikhul xadim ndax sëriñ Touba radiallahu taala anhu baayam la xaqan ci mbokk maamam la itamit ci mbokk ndax boo xoolee maam borom Touba ci côté maam Balla Aysa mi nga xamante ni moo jur maam Mor mu jur cheikhul xadim ak Amadou Fari Mata mi nga xam ni moo jur Mati Mbàkke mu jur maam Ousmane mu jur Seydi Hadji boo xoolee foofu Cheikhul Khadim nijaay la ci Seydi Hadji Malick radiyallahu taala anhu boo ñëwee ci côté maam Jaara Busa Seydi Hadji Malick cousin lay doon foofu ci moom boo ñëwee ca Louga ca côté Welaga Seydi Hadji Malick lay nekk nijaayam foofu dañu nekk ci côté bépp dañoo bokk si néeg nday néeg bokk si néeg baay noonu lañ jaxasooyee euh, moom sëñ Babacar Si radiyallahu taala anhu dafa amoon délégation ñoo xamante ni ñoom la daan yebal Touba ci lépp loo xamante ni jëm na ci wàllu diine ji jëm ci wàllu mbokk gi euh, ki nga xamante ni moom la jamono lan teel mu gën see siw mooy sëriñ fàllu Mbakke euh, radiyallahu taala anhu sëñ Fallou Mbakke ak sëñ Babacar si radiyallahu taala anhu daanaka mën nga ni benn lañ woon ba sëñ fàllu sax bu ñaan ñëw di ko wax dara danaan bala ma see wax dara dem leen laaj lu Babacar wax ñu ne ko noo ci Babacar lañ jóge nee lu Fallou wax. gis nga wala ñu ñëw ci sëñ Babacar mu ne dem leen laaj Fallou lu mu wax ñu ne ko noodee ci Fallou lañ jóge nee na lu Babacar wax loolu lépp amoon nañ ay relation yoo xamante ni dox na seen diggante boo ñëwee itamit ci ki mu gënoon a jegal si dëkkandoo muy waa kër maam bu Kunta yi foofu sax dafa amoon soxna muy maam Mariam Kunta di doomu maam bu moom la ñuy wax état su Njaasaan foofu la soxna si dëkkoon soxna soosu man jot naa koo xam daan na ma téyel alxuraan di jamante man ci alxuraan ku mokk na alxuraan la muy maam Mariam Euh, nekkoon nag nitu yàlla pire di doomu maam bu nekkoon soxnaam kon relation gënta gënta rëyati loolu boo ñëwee tamit ci mbokk euh, maam Abdallahi Niass maa alaaji Abdallah noonu lañ amoon relation ak sëñ Babacar si radiallahu taala anhu rawatina ci digganteem ak euh, maam xalifa ñas nga xam ne mooy way juru ñoom Sid Lamine Niass ak Ahmed Khalifa ak Khalifa bi fa nekk léegi bu dee surafa noonu la amee woon ak ñoom relation muqaddam yi nga xamante ni tamit ñoo bokk ak moom tarixa bi nekk ay muqaddamu tiijaan yu aju si xadara malikiya wala ñu aju si yeneen xadara comme lu mel ni ki cene ba nga xam ne ay tiijaan lañ mais seen xadara ajuwul foofu wala beneen xadara boo xamante ni ay tiijaan lañ mais am na seen la faneen fu mu jaar ñoom ñëpp ko loon mu am ak ñoom relation yu rafet rafet rafet kenn a dégg benn kàddu buy safaanoo buy jóge ci sëñ Babacar di jëm si benn këru diine boo xam day bele sa sentiment noonu mu ko daan bañe ci këram yi noonu la ko daan bañale ñëpp bu weer masaana feeñ tamit danaan def délégation di yónnee ci kilifa diine yi di laaj lu ngeen xam ci weer bi pour di woorandoog ñoom ak di woorati ak ñoom tabaarakallah macha allah loolu lu am solo la Serigne Babacar ndax it maa ngi dégg benn nettali Serigne Ahmed Tidiane si mu ni Sëñ Abdou moo ni ko bi nu jàppee sama baay Cheikh Anta Serigne Babacar lu ne la ci daj kon yaakaar naa loolu xëy na firndeel la macha allah ci alaaka yu rafet yi mu ci amoon léegi nag ñu ñëw ci euh, nday euh, ndayu mbilli gi bi histo historique gu bi lan waaw histoire ziar bi xam nga sëñ Babacar Sy radiyallaahu taala anhu euh, bi muy ñëwee toog ci xilaafa gi euh, boobu gàmm la fi fekk Seydi Hadj Mal di ko def muy àndandoo ñoom di gàmm waaye ñi daan ñëw di gàmm si bu ñu gàmmoo ba pare Seydi Hadj Mal dafay yeesal ñi muy yeesalaat laaj mu xaddam yi ku si nekk sa liggéey nu mu demee après ñu daal di pare daal di dem léegi nag nit ki boo yoree dara muy am mbir mi di avancé. foog nga foog nga am initiative yuy avancé parce que jamonoy Seydi Hadj Malick population bariwul woon benn jour bi dana leen doy mais jamonoy siñ Babacar na bi mu ñëwee ne créé lu ñuy wax daayira Sëñ Babacar radiyallahu taala moo njëkk a créé ay daayira moo tax Al Amin radiyallahu taala daan na dégg daan naa ko dégg mu ne ku créé daayira war ngaa fay droit de tel Sëñ Babacar si créé daayira wutal ko ay tur comme ni daayira yi xewee léegi bu ne wutal ko ay section daayiratul kiram daayiratul ah daayiratu niama daayiratu nangam daayiratu nangam bu ko defee ñooñ di dajaloo léegi daayiru yooyu di dajaloo nag def ay guddi àjjuma di def ay conférence léegi nag daayiru yooyu nga xam dañoo dajaloo war nañoo mën a am benn journée boo xam te ni ñoom ñëpp ci lañu war a mën a dajaloo pour mën a gisante ah daayira yi nekk Dakar yi nekk Kaolack yi nekk nangam yi nekk nangam kenn ku ne di def say kii war nañoo am benn journée boo xam ne daayira yooyu yëpp nag ñoo war a dajaloo nag dajaloo ci kanamu seen kilifa rendre ko compte seen liggéey mu waxaat leen leneen ba déwén loolu mooy moo tax mu créé GIA général moo tax boo xoolee jamono boobu da nga ne convent la daan doon waa dakaar daayira dakaar yi convent la ñuy doon ñu jugee Louga convent la ñuy doon ñu jugee Diourbel convent la ñuy doon ñu jugee Sàngam ku si nekk def convent ñu daal di ñëw bu ñu ñëwee mu yabal leen ñu dem ziyaara Seydi Hadji Malick ci xabru ba bu ñu ziyaara Seydi Hadji Malick ba pare nag ñëw mu toog waxtaan ak ñoom bu ko defee nag daayira yooyu président daayira bi ak mu mu dëkk ba jël kàddu sëñ bi liggéey bi fii la toll jàkka ja fee la toll nangam ci ijaasa fee la toll léegi lii la ñu soxla diw noonu diw noonu diw noonu mu déglu leen ñoom ñëpp ba pare mu waxtaan ak ñoom dénkaan leen ñaanal leen ñu daal di delluwaat loolu mooy moom moo taxoon mu créé ziar général bi. bi si desit mooy xam nga euh, lépp loo gis dafay laaj ñu koy le di ko di ko defaraat gis nga portable bi ni tey boo xëyee wuy suba ba ngoon da nga koy laaj nga branché waat ko. Euh, connexion bi weer dee da ngay fay wala crédit bi nga dem jëndiwaat loo gis rek danga nga ko war di defaraat nit nag esprit bi côté yàlla bi war na di ko renouveler waat léegi nag ci ñetti post yi ñetti ñetti euh, fii ñetti poste de yi la ko mën a renouveler soit temps wala lieu wala personne am na temps yoo xamante ni pour nga defaraat sa esprit la am lieu yoo xam ne pour nga defaraat sa esprit la am personne pour ñu defaraat sa esprit la dégg nga kay moo tax sax boo xoolee ponk lislaam yi di juróom ci ñetti la xaajalu dafa am ponk yoo xamante ni temps la concerné am yoo xamante ni place la concerné am yoo xam personne la concerné par exemple julli julli temps bi condition la si tey fi mu ne nii ñu ngi si tàkkusaan amoo droit julli timis amoo droit julli kon temps bi am boo xamante ni lieu la place bi condition la si mu ne ne ah Covid bi am na rek nañ defar suñu kaaba Sénégal commencé ko wër kon amuñu aj màkka foog dem màkka am loo xam ne personne bi condition la si mooy azaka azaka day boo génne woon gisoo nit koo koy jox léegi nag am na place yoo xamante ni am na euh, jamono yoo xamante ni day chargé crédit esprit nit ki lu mel ni ki laylatul xadri laylatul xadri li nga ci mën a amee connexion sa diggante sa borom mënoo ko am si beneen guddi mooy xayru min alf kon kooku promotion de temps la am place yoo xamante ni li nga ci mën a amee ci yàlla mënoo ko amee faneen lu mel ni ki màkka lu mel ni ki Médine ak palaas yu tedd yi waaw ah, kay jumaa ja ak lu mel ni ki nit tamit am na façon di yoo xam nga jàkkaarloo ak ñoom li ñuy def ci yow waaw ah, kay léegi loolu moo tax nag bi bu nekk nag war nga créer benn ziar boobu nag bu ko defee temps bi da si joué ak place ba ak nit ki ngay jàkkaarloo mu defaraat sa pas-pas nammaat la ndax ziara nitu yàlla dafa am benn benn dafa am lu muy jari nit ki da du ko yëg ah, tey fi ne nii boo yoroon sa portable nga dem place bu am wifi ak place bu amul wifi xam nga bokkuñu léegi nag esprit nit ki place su nitu yàlla day am wifi connexion digganteem ak esprit bi loolu tax yonent bi salaa salaam bi muy commencé màkk di woote mu ni leen bu ne kenn ziyaare ji xabru dafa araamoon mu ñëw ba Medine na dagan lu tax loolu pourtant bi mu nekkee màkk li tax mu araamaloon ko mooy màkk xabru ya fa nekk yëpp du xabru jullit léegi nag yow jullit bi boo dee fréquenté xabru yéefar day yàq sa connexion. Mm. tey am na relation boo fa doon boo fa doon taal sa portable mën na lakk sa bat mën na koo yàq léegi nag boo dee virus ba très bien virus yu yéefar gi waaw kay moo baa ngi noonu waaw parce que nit ku génn àdduna place am soit day nekk bu àjjana bu dee nit ku baax wala mu nekk bu safara bu safara dafa am virus yu fay jóge di ñëw bu àjjana bi day am ay virus day am ay connexion léegi nag bi ñëwee Médine nag mu dem leen ngeen ziare ci xabru yi ndax Médine foofu ay jullit am boo demee di ko ziare dafa am lu lay jox ba noppi nitu yàlla xabru nitu yàlla bi nga toog di ziyaare xabru boobu nga toog noonu da ngay jàpp ni place la ci àjjana données yi joxe yi nekk ci àjjana moo fay nekk parce que yonent saasal moo ko wax mooy nit ki bu génnee àdduna soit xabroom appartement la si àjjana wala appartement la ci safara bi si des it yàlla wax nañu nee nañu nit ñu baax nii bu ñu génnee àdduna ci sama place la ñuy nekk waaw inda rabbihim la wax inda rabbihim yurzaqun indiya al indiya mooy adverbe de temps ak adverbe de lié lié indiya waaw inda rabbihim kon ñoom ci lieu yàlla palaasu yàlla fa la ñuy nekk kon tey xabru nit yàlla bi nga toog jàppal ni yow indiyatullah maanaam ci palaasu yàlla nga toog palaasu yàlla nag dafay jóge ci ay leer ah dafa jóge ci ay may dafa jóge ci ay njéggal bokkul ak palaas boo xam ne palaasu keneen la waaw nga toog ak eh, nitu yàlla nga ak eh, kii bokkul kon loolu mooy sensu ziar waaw moo tax nitu yàlla looy gën di ko ziare di ko gën di jege am na lu muy sànni ci say xol nga yëg ko wala nga ñàkk koo yëg waaw. importance bi ziar am ci tarix bi. waaw importance bi am ci tarixa Cheikh Ahmed Tidiane importance bu am solo la ndax boo xoolee ziara dina jur ñett yi dina jur cofeel hmm? dina jur renouveler cofeel hmm? dina jur tamit connexion bu dox sa diggante ak sa borom euh, yow xoolal nit ki sax boo ko boo ko boo ko dee ziyaare ji cofeel gi muy yokk ci yow bokku la nga toog bañ ko dem ziyaare ci te tarixa Cheikh Ahmed Tidiane dañ ne la ki fa nekk muqaddam wala nekk fa sëriñ ci tarixa yëpp sax sans exception da ngay bëgg sa sëriñ da nga koy sopp léegi nag bëgg sa sëriñ ak sopp ko lépp luy moyen bu lay mën a may loo lool rek day daal di jaadu te bokk na ci mooy ziyaar fii ak yaa ngi ñëw di ziyaare sa sëriñ di ko nemmeeku mooy yaa ngi wane cofeel ci moom yaa ngi wane mbëggeel ci moom yow xool nit koo xam te ni saa yoo xëyee nga ñëw nemmeeku da ngay dégg naan ak a baax moom daf may nemmeeku rek waaye da dégg ne ah a yées du ma nemmeeku léegi nag euh, nitu yàlla bi tëdd si bàmmeelam nga ñëw di ko nemmeeku dafa lay gis daf lay xàmmee te dafay wéttaliku ci kaw yonent saa salaam moo ko dafay wéttaliku ci yow waaw comme ni ngay ñëwee di seet si nit nga wéttali ko moom boo ñëwee ci xabru nitu yàlla bi day wéttalikoo ci yow léegi wéttalikoo googu muy wéttalikoo ci yow di kontaan ci yow bul xam lu mu lay ci ay njëriñ waaw kon importance bu am solo la ci tarixa Cheikh Ahmad Tidiane yi nga xam naa nag wax fa dëgg yàlla dootul sori dootul ko téye lu yàgg ndax macha allah yaakaar naa borom yitte la te it loolu leer na ndax macha allah léegi sëriñ euh, lan mooy message bi jëm ci taalibe bi. waaw message bi jëm ci taalibe bi mooy comme ñu ngi jëm ci ziar bi ñu fexe rek ba lépp luy yar ak teggin ak njàngaleem kilifa ga nga fexe ba matal léegi nag dafa am léegi lu xew senegal ñu ngi ñaan daal ñu moytandiku ko mooy li ñuy wax buzz ak caaxaan yi léegi cérémonie diine bu am. ñu jël ay yenn certaines personnes yoo xam ni duñu dara ca tariixa ba dajal fa ay jësiteer ay fecckat ah wane fa ay or wala wane fa ay yaramu neen wala nangam bu ko defee ñu ni lii mooy màggal gi wala lii mooy ziar wala lii mooy appel bi te fekk na alors que loolu laalewul ak dara waaw bu ñu génnee ci ziar bi xam nga yéen seen télé bi li mu def dafa am solo seet koo xamante ni wóor na ko ni kii xam na dara ci ziar bi mën na wax lu leer ngeen dénk ko seen micro mais am na yenn site yoo xam dañuy ñëw ci ziar ba wala cérémonie diine ba seet waykat ya wala fecckat ya wala taxawaalukat ya di caaxaan ñu jël génn ko fesal ko bu ko defee ñu ni lii mooy ziar bi du ñu génn koy jàng alxuraan du ñu génn xalifa ba waxam du ñu génn porte-parole waxam du ñu wax telu eh, thème central bi lii la mais waxi dof ya fa am la ñuy génne fésal ko loolu nag ñu ngi ñaan daal yal nañu si yàlla musal waaw te it ñu xam ne ñun Sénégal daal cérémonie diine yi eh, yàlla moo tax buy dem ànd ak yar ànd ak teggin ak xormaay place ba waaw tabaarakallah diko ko jaajëfalaat bu baax a baax moom professeur mom Ousmane Ndiaye di ñaanal yag wér yok barki yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam leen fàttali ba léegi ando nak ak Talibé TV macha allah ci spécial ziar général bi nga xamni ñu koy wajjat incha taala la fay xew ak namuy demé allah ci li mëna am solo ngir it li mëna yok suñu pas pass ngir it wax fa deugal Talibé TV njariñ moko ko taala non lay demé ma ngi gërem nak sama cameraman bi nga xamni wax fa deugal sa su ne ni ma koy waxee rek ni ngeen di gis muy rafet ni ngeen di gis macha allah muy lèr mom la Cheikh Tidiane mom mo ne ci gannaaw kon diko ñaanal momit gudd fan ak wér lañ jox dig dajje benen yoon wa alaykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuh barakatu لله يوم نزوله متقلدا بالحق والبرهان